jigen nga yo ne day am jour ne tam et puis do sax comprendre pour un détail ñu andi ci wax ju rëy rëy rëy rëy léeg nga def leen lu nous, rëy xolal ñu sax la koy calmer ñu ko do comprendre mhm. ku ki tam na comme li ñi wax man man arrivé bien sûr man nako dal mën na ko dal tam ci jafañ-jafañu àdduna xam nga euh, euh, ma fii añ bi mën nañ ko négocier ji ak bi ndax da ngay xëy dem dewoo ji ko mais ndékki ndékki da nga koy fanaanoo boo ko fanaanoowul mu la wóor na nekk ndékki xale yi ne newu fi boobu moom borom kër bu bu normal la lay wax non xolam mënul nekk c'est impossible <laughs> impossible te boroom kër nag bu ah bu fa yedd yi newul fa mu naqari la rek. Mm-hmm. yow nag li nga xam ne nag yaay soxna si. Mm-hmm. yaay gérer. Mm-hmm. xool ni nga mën a def affaire yi calme. non nga def sa mbaxal mu tooy. yaa ngi dégg bu ànd ak tuuti ba bakkaan yooyu. ak ah, yokk sax bu la neex ay. pepeso xam nga nga ko dóor mu daanu mais ndékki li newul moom borom kër gi mënul am mënul nekk